jamono boo xam ne nag dañ ciy dox mbokk seeti ci ku feebar seeti ci koo xam ne dafa nekk ci ay jafe-jafe eh, taxaw ki nga xam ne amul doole suturaal ko jàppale ko ci niñ ko mën a jàppale kon bésu roofante la bésu xalaatalante bésu dimbalante gis nga ni ñu dajaloo nii tey boroom xam-xam bi dafa wax ne ni ñuy dajaloo nii tey ci bésu iid bi buñ ko doon dajaloo ci suñuy soxla benn soxla dootuñu not ñun jullit yi ni ñu nekkee benn ni tey kenn ku ne naan sa moroom baal ma ak baal ma ak di ko wax ci sa làmmañ fexeel ba loolu mu dugg ci sa xol bañ a yem ci sa làmmañ baal ma ak booy wax na na ko tubb ci sa xol mu bañ a yem ci sa làmmañ jullit day jàpp ne mbokk jullitam mooy mooy mbokkam du ko def lu ñaaw mukk duko ko lu ñaaw mukk duko teureulal ay pexe lolu parce que pexe bo man ti jëf sa kaw lay delu delluwaat yàlla nek na buur bu mat bo xamne du bàyyi ngay sànk jaamam ci nu la neexe bakken bu yàlla wara jël yàlla mo koy jëlal bopam yoy yeb nañ ci bàyyi xel te ñu ànd ak dal ànd ak sago ñu ànd ak dal ànd ak sago l'islam bo ci nekké da ngay ànd ak dal ànd ak sago l'islam bëggul mukk loo xam ne dañ ko lu ñu organisé wul la l'islam diine boo xam ne léppam dañ ko organisé boo duggee ci jàkka yi dañ ko organisé boo demee ca Makka dañ ko organisé feneen booy man dem di fa jaamu yàlla dañ ko organisé te jullit bu ne nag amuloo lu dul fa ngay dem boo dee jullit da ngay dem julli ci ci quartier bi nga dëkk ngay dem di julli ci jàkka ji di fekke waa jàkka ji lañuy ñuy def di bokkandoo ñoom ak jàkka ji loolu moo gën a rafet nga ne jullit laa rek sama yoon nekkul ci li ci jullit day dem fekki mbokku jullit yi day nangoo toogaam mbokku jullit day nangoo waxtaan ak mbokku jullit day nangoo con nangu conseil mbokk jullit loolu mooy tax ñu wax ne kii kat jullit boo xam ne bu nangu jullit boo xam ne ne bu dëppoo la ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee yooyu ñu bàyyi ci xel ba ci des itam ñu yar sunu njaboot adduna toll na foo xam ne foog ñu yar ku si toll ci wàllu jàng métier na dem jàngi métier nit ku amul métier loolu kenn waxul ni mu kenn xamul sax ni mu ñaar nit koo xam ne xamul lu muy def amul lu muy def defuloo dara toog di naan ataaya jamono bii xew nit ku ne na am looy def yaa xam da ngay jaay yaa xam looy def waaye na seet na rek te yàlla tax jamono loolu la laaj xale yi ñu orienté leen réew mi mu ngi jëm foo xam ne bu ñu deful ndànk réew mi dina tàkk suñu kaw te loolu kenn ñaanu ku toog fii naan mag ñi ñaan nañu mag ñi ñaan nañu mais nag condition bi mooy ñu tekk ci yoon condition bi mooy ñu nekk si njub condition bi mooy lépp lu waay lu waay di def nga xam li ngay def lu waay waxoon nga appliqué ko réew mi toll na foofu lu waay waxoon moo tax loolaa wax bul yaakaar ne du ñëw mais bés dana ñëw li nga waxoon teew benn na nga jëf ko wala nga ñàkk jëf kon kuy wax na nga xam li ngay wax boo dee njiit boo dee wax xamal li nga wax boo dee digge xamal li ngay digge parce que loo yaakaar ne bés du ñëw bés dana ñëw benn na nga am appliqué li nga waxoon wala nga ñàkk ko appliqué ñu ngi ñaan réew mi nañu ànd ak dal li fi dee ci ay nit jaaruwul woon benn toq deret sax war woon a tuuru Sénégal ndax lu bu kenn xamul ndax yoo xam ne kenn tegu ko ci yoon loolu waru waru waru waru Sénégal yàq-yàq bi fi am yàq-yàq bi fi am ci réew mi ak li fi yàqu yëpp te dara warulu ko lu dul ay loo xam ne dem nga ba ca cëppaandaw ga nga ne loolu amul loolu rafetul ci réew mi justice dafay màndu dangay ngay màndu justice moo yor réew réew moo gis mu avancé justice bi moo baax réew nag bu ñu demee bay laam-laame justice ba ah loolu wóoratul justice moo yor réew ku am dëgg ñu jox ko dëgg ku ñàkk dëgg ñu won la ne danga ñàkk dëgg loolu mooy jaadu loolu mooy doxal réew alalu réew mi ñu xam ne dañ ko war a def ci réew mi jaaduwul benn nit jël ay milliards yor ko dem ak moom te du mujj dara ci Sénégal la jaaduwul Sénégal ndóol gi fi nekk ñàkk gi fi nekk am na loo xam ne war na rus nit sa war na ko rus di ko def tey jii ku defoon boo doon ingénieur nangam wala ingénieur ci nangam bàyyi nga fa pour lan dem defi politique parce que politique bi moo gën a gaaw moo am si réew ñi daan jàng am ay diplôme ci ci ci ci ci ci ci métier sàngam wala ci ci dé euh, ci ci demoon sàngam yépp bàyyi nañ ko tey lan moo tax parce que nee nañ politique bi moo gën a gaaw loolu nag rafetulul der réew mi defarul réew mi sàmmul réew mi mais dafay delloo réew mi gannaaw ñu ngi ñaan ñu bàyyi xel suñu bopp kilifa bu ne nga bàyyi xel ci sa njaboot yaa leen war a yar yow la ñuy laaj seen yar ëllëg toppatool seen njàng parce que kenn mënul dégg jëndal sa mbubb sa sa sa njaboot yëre jëndal ko dàll te doo xool jikkoom fu mu toll loolu kenn ko def sa sa njaboot da ngay xool jikkoom da ngay xool jaamu yàlla da xool est jullit gi muy wax mu koy jëfe yow na nekk sa responsabilité yow way juróom yaa ko war a xool bu dee doom góor bu dee doom jigéen nga toppatoo àdduna yàqu na mais tamit am nga ci part de responsabilité ngay wax ñoom di xool di natt seen dégg-dégg te xam yoon la nekk nga encouragé leen ñu nekkul ci yoon nga ëlbati loolu moo a yàq alalu jàmm bañ jël alalu jàmm bañ a tuur bakkanu jàmm bañ a gaañ nit bañ a lor nit ci kàddu bañ a lor nit ci jëf loolu nag ñu ngi ñaan ñëpp yàlla na ci yàlla defal sutura yàlla yàlla sàmm yàlla yàlla aar dafa nekk tabaski mu xat kenn mënul wax lépp ndax ku ne xam na ne bés la bu xat waaye ah liñ ci am ah, yal na ko yàlla barkeel mag yi fi nekk yàlla yàlla guddal seen fan bu ko defee rek ñu jàllale ay kantu sant ci ah, turu commission jumaa ak ci turu dëkk bi yëpp di nga jiital ah, ñu ngi wax Ousmane